je suis obligé ma sànni si quelques mots euh, dañuy gërëm euh, ñi nga déjà ñoo jël initiative bi muy waa FC je m'engage parce que c'est la première fois nous gis ay supporters manko nek ben, yamuñu ci football mais nek ci champ social bi loolu dafay wane lu et donc nous leen di encourager te incha allahu rabbi dinañ leen également gën a jàppale leneen li ci tegu mooy euh, xëy na bi lii amee jàppoon naa bës ak euh, Laay Cissé pour ñëw d'abord xool parce que ay nit boo leen jàppale il faut nga xam déjà li ñu soxla ba pare pour mën leen jàppale malheureusement nag mu tombeek mission boo xam ne dem naa ko bi may dellu si nag temps bi xat lool parce que jàppale bi mën na nekk daare mais jàppale bi mën na nekk leneen

mais ñëw naa gis naa ñëw naa dégg naa leneen li ci des danaa ko ànd ak waa Guédiawaye FC je ñu def leneen lu xaw a mel nii wala xëj na lu ko ëpp mais en tout cas jàpp leen ni man ci sama tur ak ci tur waa hôpital bi ñu ngi seen wet te dinañu def suñu kéemtalaay kàttan wax dëgg yàlla pour jàppale leen li ci des nag

Dès le soir, également euh, bu ko beaucoup présidente bi ñu xol li ngeen wax ci walu massage ñu xol après ñu xol nak ci suñu luñ ci pour ñu leen donc lool rek la amone lu may wax remercie.